Safando Tapha Mbeur numéro 2 moom lañu jàkkaarloo waaw waaw mbokk internet yi troisième soirée Teranga production woo ñu fi tey nekk jeudi 18 mai 2023 fii ci stade arène nationale Tapha Mbeur numéro 2 ak Safando Safando moo leen féetee droite Tapha Mbeur numéro 2 moo leen féetee ñaari mbër yaa ngi lewaatoo quatrième combat de la soirée te nekk jeudi 18 mai 2023 fii ci stade Arène Nationale Teranga production woo ñëwi grand combat bi dox ci diggante Albouri ak Jara 2 Safando dem na songu daw na songu jàppante na ñoom ñaar jàppante na ñom ñaar Safando Safando ak Lavando. Tapha Mbeur numéro 2 Lavando mu ngi koy takk takk na ko waaye waaye Tapha Mbeur may ko dara Tapha Mbeur numéro 2 Tapha Mbeur numéro 2 moo ñu féetee ndeyjoor Tapha Mbeur mi ngi jéem a génn saako yi waaye sa waay nee na ko doo génne saako yi Safando Safando jàpp na génn na saako yi waaye ar yu si léegut ma foofu dafa mbër Safando mugul mu génn saako yi waaye benn tànk baa ngi ci biti benn tànk baa ngi ci biir Safando quatrième combat de mu ngay ñëw defu mu génn si biir saako yi dafa mbër dafa bëggoon a génn saako yi ar bi sim na am na lu xew wala da leen di waar ci biir géew bi ar bi da leen di waar ci biir géew bi ar bi jox avertissement Tapha Mbeur ndax Tapha Mbeur daanaka moo doon génn saako yi diggante Safando ak ak Tapha Mbeur numéro 2 ñu ngi leewtoo ñoom ñaar ar bi mi nee na la lu ar bi mi nee na la bëre leen sànq gis nañ Safando moo njëkk a daw songu daa yooru song bi ñaari mbër yaa ngi lewaatoo ba léegi kenn defagul dara combat xale la kenn ku nekk yaa ngi Tapha Sané na benn léegi waaye dalut diggante Tapha diggante Safandou ak Tapha Mbeur numéro 2 ñaari mbër yaa ngi leewtoo ci biir géew bi Tapha dagg na leewtoo bi at bi baa ngi wax ak ñoom at bi nee nañ bëre di fàttali ne Tapha Mbeur numéro 2 am na benn avertissement waaye Safandou amagul dara. Safando moo leen féete ndeyjoor Tapha Mbeur moo leen féete càmmoñ numéro 2 ñu ngi lewaatoo boobu léegi song amut waa gis nga Safando dem na song Tapha Safando ni muy songee baaxul day yooru song bi boo si jëlee coup rek mën Safando mi ngi dugal ku Safando tamit mi ngi Tapha Mbeur ngi dugal ñoom ñaar ñu ngi xeex ña xeex Tapha jéem naa plaqué waaye mooy na plaqué bee ñëragut ñaari mbër yaa ngi leewatoo ci biir jàppante nañ Safando muy kenn ku ne am nga benn ngemb ndengeñ sa morom arbitre bi sifflé na mbiita bëri nañ cinq minutes waaw waaw deuxième mi-temps baa ngi noonu at baa ngi wax ak ñoom at bi bisimilah na quatrième diggante Safando ak Tapha Mbeur numéro 2 Tapha Mbeur numéro 2 moo leen féete càmmoñ Safando moo leen féete ndeyjoor Safando daa bëgg a song waaye moom ni songee dara baaxu si ndax day yooru song bi. boo dee mbër mu mën a jël bu la joxee kuure nga wàcci yaa ngi noonu ci biir géej bi léewtoo diggante Safando ak Tafa Mor numéro 2

nuyuwaat mbokk internet yi nga xam ne yéen ngi siiw seen seen fii suñu xalaat TV di leen wax ngeen abonné tey bës kala doon notification yi ndax su dugalee vidéo yi ngeen mën di ko jot direct di nuyu waa axlu làmb yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ba léegi bëriwaat nañ deux minutes kenn songoo wut arbitre bi jox leen avertissement Safando am na benn avertissement waaye Tapha Mbeur numéro deux am na deux avertissement instant bi Safando moo moo moo féete avantage ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar dafa mbër numéro 2 ak Safando mbëri seen mbër dafa des Safando gis nañ bi passé moo doon song waaye instant bi doon song bi da koy calculer Tapha Mbeur mi ngi dox ci kawam ndax moom moo Savando moo moo appo avertissement moo ña ngi xeex songante nañ ñoom ñaar jàppante nañ Tapha Mbeur takk na ko jàppante nañ ñoom ñaar Savando Savando mu ngay jéem def action jugaan nañ ñoom ñaar mu ngay mu génn saako yi Safando moo leen jëm a tardé action sànq waaye at bi joxe na avertissement trois avertissement pour Safa Mbeur numéro deux at bi sifla waa na diggante Safa ak Safando combat bi bu jeexee fii Safando mooy jël ndam li ndax Tapha Mbeur am na trois avertissement Safando benn avertissement la amagum instant yi comme tamit Safando chaque jour mooy soog waaye ni baaxut Safando ni muy ñaari mbëri jàppante nañu man ko ñaari mbër yaa ngi jàppante nañu ki ñu nekk yaa ngi dugal sa morom éperkil Tapha Mbeur numéro 2 ak Safando Tapha Mbeur numéro 2 mooy dóor noonu mooy rokos ardo am na ah, jël na ko jël na ko jël na ko waaye ñaari mbër yaa ngi xeex ñi ngi bëre instant bi Tapha daa bëgg a décider instant bi ndax Safando moo abu abat moo amagum abat kii avantage combat bi daanaka bëreegum ne cinq minutes léegi arbitre tas mas ah, arbitre tas na combat bi tas na combat bi combat bi jeex na combat bi jeex na par décision arbitre avertissement lañ koy gagné temps bee jeex temps bee jeex dafa am numéro deux temps waaye temps bee jeex Safando moo noonu par avertissement la jeexee bëri na 10 minutes ki am aver trois avertissement ki am benn avertissement